وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بكم من نعمة فمن الله mbokk jullit yi mbokk yi taamu wettaliko seen télévision Tawhid TV tey topp seen émission bii di Al Huda seen mbokk la Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye ñëwaat na ci aljumay tey ji ngir indi leen seen émission alhuda di émission bi yittoo téereb borom bi subhaanahu wa taala ci télé bi maa ngi feggoog sama doomi ndey al Oustaz Abdoul Aziz ci jotaayu tey bi eh, ci njalben di ndokkel ñëpp ñëpp rek ci tolluwaayu koor gi tey ñaan borom bi subhaanahu wa mu nangul ñi li wees lépp waaye nangul ñu tamit li nekk suñu kanam fukki fan yi nga xamante ni eh, ci lañ jub nii yàlla nañ borom bi subhaanahu wa taala defal tawfiq ñu mang yi wi ci nekk yëpp laylatul qadri gi ci nekk ak njëriñ ya ci nekk niñ ko jàngate woon suñu jotaay bi wees yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala defal tawfiq nu màng guddi googu yi waaye lépp loo xamante ni yiw la ca mu fay ñu ko canam toll moom borom bi subhanahu wa mën na ko yal na ko def mbokk yi waxoon nañ leen ni suñu jotaay tey incha allahu rabbi ak sax bii ci topp te mooy ñaari jotaay yi mujj ci alhuda ci koor gi bi feexlu lay doon feexlu na firi naa leen ko ca ba ma leen di jox programme koor gi jotaale yoo xamante ne incha allahu rabbi dañ ciy dalal suñu ay yoo xam ni borom bi subhanahu wa taala tawfiqal na leen ñu mokkal alquranul karim waaye borom bi it euh, may leen ñu am baat bu neex boo xamante ne bu njànge alquran mu génne taarub alquranul karim waaye it ñenn ca ñoom sax yokku lu ëpp benn riwaaya incha allahu dina feeñ ci jotaay bi ba tax na jot ci jotaayub tey bi lañ koy dooree dalal ci ñeent ci ñoom ku ñëw rek incha allahu béggal ñu dala ci alquran luñ ca mën a commentaire ñu commentaire ko ci ca barab boobu mu jàng euh, bàyyi euh, ko yeewi ko keneen ñëw incha allahu ba waxtu wi jeex bu aljuma ji ñu ñëwaat ci loolu ndax alquran la ñu wax ci biir weeru koor looloo tax ñu changé forme émission bi ngir ni jàng nañ jàngat ay aaye lu jiitu koor gi ak bi koor gi dugg see sax li des ci koor gi nag nu toog di déglu féexlu sunu borom subhanahu wa taala di wax ak ñun ci kàdduk gone yi nga xamante ni ñoo jàngal alxuraan Cheikh Abdoul Aziz loolu mooy suñu programme tey nu bàyyi la nga nuyoo présenté ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a dalal ñu dalal ki nga xamante ni moom lay njëkk dalal incha allah Cheikh Abdoul Aziz bismillah. waaw euh, ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi ñu ngi lay euh, ziyaara bu baax a baax a baax mm. di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na yàlla boole ñu defal jàmm allahumma amin defal ñu barke xéewal ci euh, bés yi ñuy ne nangul ñi lépp loo xamante ne bi ñu ngi ko koy jaamu lépp lu mu ci diggee woon nit mm-hmm. yàlla buñ ci mucc mm-hmm. ndax amin xam naa ni suñu borom lu mu ñu dig rek mm-hmm. euh, lu mu digg jaamam rek lu baax lay doon dëgg lépp lu mu ñu tere it nag yal yàlla dëgëral ñu ba ñu bàyyi ko yàlla nangul ñu ko defal ñu ko mu nekk ci sunu miisaanu xasanaat euh, mhm. yi nga xamante ne bi euh, noonu lañ koy wutee ci àdduna ndax doomu adama moom mhm. lu muy wut ci àdduna rek dafa war a wut loo xamante ne bi bu demee ci kanamu yàlla bu koy présenté mhm. mu nekk loo xamante ne bi luy neex présenté lay doon Euh, comme suñu àdduna bi rek booy présenté euh, dara ci kanamu kilifa. Mhm. ngay bëgg bokk ko joxee mu kontaan ci yow bég ci yow. Mhm. Euh, rawatina nag sunu borom. ak nga mhm. xamante ne bii fii ñu toll. tembe tembe tembe li muy gën a bëgg ci doomu aadama bi. moom muy koy bàyyi xel rawatina ci wàllu alquran. di nuyu ñi nga xamante ne bii ñoom la ñu nar a àndal tey ci alhuda. sama émission préférée. comme ni ma la koy faral di waxee saa su ne. waaye tey dafay gën a rawati. ndax ni ñu ko jëlee. baatu féexlu dafay xaw a dafay xaw a euh, nan laa ko war a mën a tuddee ci wolof sax. Hmm. léeg-léeg ku koy déglu ku ku déglu baatu féexlu. waaw mooy ku defa defa defa def ba sonn naa tëdd fii ci ker gi féexlu. <laughs> te kenn du tëdd ci naaj di féexlu. ci ker rek nga mën a tëdd féexlu parce xam nga ni boo fa tëddee. waaw lu bare bari yow mi nekkoon fas. Euh, mhm. xam nga ni bu bu weeru koor mësaan a jot. naaj wi tàng lool. <laughs> Ah, da ngay gis koo xamante ni ah, maa ngi daw ca ker ga fi am ah, kon nag bu ñu nee tey ci alquran la ñuy féexal loo eh, eh, eh. te suñu xol la ñu nar a féexal ci alquran loolu lu rëy la yàlla na yàlla boole dafa jàmm boole koog nag mm-hmm. ay ay mbokk yu am yu am yu am solo mm-hmm. yoo xamante ne bi tey waroon nañu fu ñu nekk ci àdduna mm-hmm. ñu leen fay wane di leen publicité di leen di leen di leen di leen sago Euh, di leen publier. est-ce di wax ni na vidéo yi tas. comme ni ko gars yi di waxee. ñooñu rek lañ ko war a defal. ñoo ñooñu alquran. est-ce que est-ce que hum ahlullahi wa xaasatuhu. yal nañu ci yàlla boole. yàlla defal leen jàmm bu baax a baax. Euh, ñu am ci tey juróom ñetti mbokk. Mm-hmm. Euh, wala ñeenti mbokk ñoo mhm. xamante ne xam naa ñeneen ñeenti ya ci mhm. beneen vendredi bi incha allah rabbi ñu ñëw waaye tey ñu am ci ñeent ñoo xamante ne bi mhm. macha allah eh, comme ni nga ko waxee rek jàng nañu ba ñu waree jàng waaye def ay yitte nag ndax alquran foog nga def ci yitte pour mën a am li nga xamante ne bi moom nga soxla eh, kiñ ciy njëkk a àndal tey ci jotaay bi mooy Mouhamed Ibrahima Cissé mu war ñu jàngal nag euh, riwaayatu Hafs. incha allah incha allahu rabbi. Mhm. Euh, ñu delloo la kàddu gi. Euh, incha allah jë jërëjëf Cheikh Aziz kon danoo bëgg a feexal suñuy xol. waaw ñëw nañ ci. gox bu tudd tawxiid mhm. toog ci suufu garab gu tudd alhuda bëgg a feexal yi xol ci alquranul karim napp napp nga ma rek waaye baax na bu ko defee incha allah kon dañ koy bàyyi heureusement ba ci à l'école du prophète la ñu génne alhamdulilah alhamdulilah <laughs> Cheikh Mouhamed euh, Yaama Mouhamed euh, Ibrahim Cissé euh, jëlal micro boobu dañ lay bàyyi nga nuyu mbokk yi lay seetaan présenté wu maanaam noo foo dëkk foo jàng alquran al karim ba pare nga dégtal ñu li ñu indil ci alquran. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu sama yi toog fii mhm. Cheikh bi maa ngi lay bu baax a baax. Abdoul di ñaan borom bi subhaanahu wa taala télé bi law bu baax a baax bañ koy dégg fu allah. allahumma amiin man maa ngi tudd Yaama Cissé. Mhm. dëkk Thiénaba Seck. Mhm. yu doom Ibrahima Cissé ak Mariama Sey. est-ce que jàngee Daara Cheikh Aboubacar Cissé. est-ce que macha allah mhm. Daara jooju fu mu nekk. Thiénaba la nekk Thiénaba Seck macha allah macha allah. bismillah léegi asmi'na shay'an min qira'atik. a'uudu billahi mina ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم macha allah macha allah Cheikh Abdoul Aziz bismillah eh, am na solo am na solo lool am na solo lool sax eh, njàng mi neex na mhm. jaar na ci yoon mhm. eh, jàng na ko ni mu ko war a jànge mhm. te ku ko dégg xam ni fawut ci bi muy jàng ndax dafa am lu lu am solo loo xam ne nit ñi dañ ko war di bàyyi xel maanaam di jàng alquran boole koog di di ci fo Euh, Sénégal war nañ koo bàyyi. Mhm. war nañoo dépasser foofu léegi. Mhm, mhm. ndax euh, jox al alquran ak bi mu bi mu am. Euh, li ñu doon wax léegi rek. ci bi may ubbi. di ñaan yàlla lépp lum ñu dig mu defal ñu ko. allahumma inna waadallahi xaq. moom mu ñëw foofu génn génn génnewaat ñu foofu wax ñu it nag ni jàngal ñu li ma jàng ci aaya bi lu bari bokk li ma ci jàngat lu bari bokk na ci li ñuy def dañu xam ni bés dina jot rek ñu wuji sunu borom. Mhm. wa huwa yuhyi wa yumiit mhm. wa ilayhi turjaun kon euh, li war jullit bi dëggantaan. Mhm. mooy mu fexe ba euh, dundam bii. mu ci mu ci mu ci mu ci bàyyi xel alquran bu baax a baax a baax a baax ndax Mohamed alquran ni mu tegloonte mhm. <laughs> léeg-léeg nga jàng aay boo xamante ne bii mhm. euh, la koy la koy lay firi aay bi ma ca beneen saar mhm. ngay jàng ay yuy tegloo yoo xamante ne bii benn bu ci nekk bokk ak sa morom la muy wax dëgg la te saa yoo ko xoolee rek mu jox la loo xamante ne bii sag dund la yow ni nga war a dundee ci journée bi wala ci weer bi wala ci semaine bi wala ci at mi kon dafa dafa dafa yéeme te boole ci li ñuy jàmbat ci àdduna beeg feebar yu bare yeeg mi alquran wax nañu ko léegi shifaaun li ma fi sudur feebar boo gis ci xol la nekk mhm. sunu dënn yi la nekk dañ ko mhm. génne sànni ko mhm. léegi nag euh, li ci gën neex mooy sunu jotaay bi daf koo tënk dënk <laughs> suñu jotaay bi ci biir li mu jàng fa li dalika fal yafrax bi fadlillahi wa rahmatihi waaw bi dalika <laughs> fal yafraxu xayrun mimma yajmaun kon nañu ko nañu nañu nañu nañu féexal suñu xol ci alquranul karim macha allah. alhamdulilah Cheikh Abou Taha. jazakumullah xeyran Cheikh Abdoul Aziz noonu nga <laughs> ko waxee alquran moom. Euh, ni ko Maxtaar si la di faral di waxee. Mhm. dafa am jamaal. Mhm. am jalaal. Mhm. jalaal gi moom nekk gi mu nekk suñu waxi borom subhaanahu wa taala rek. moo ko génne fi ne ni boo doon làkki arab di làkki arab ba yàgg nga dugal ci laaye doonte jàng ko bi tajwid neexaloo ci sabaat kii kii dégg dina am lu mu yëg ci bi nga duggee ci laaya ji lu jiitu ngay ngay kii loolu mooy jalaaliyatul quraanil kariim jalaal ji alquran jalaal ji moom li koy génne mooy gén indi maxaarij bi jox safaat yi waaw doonte neexaloo mhm. jamaal gi nag moom neex baatub kii jàng ma koy joxe moo tax nga dégg saa soxna wax ne zayyinul qur'ana bi aswaatikum fa inna sawta alxasan yaziidul qur'ana xusnan kon fekkoon na mu am fekk na ko ba am ko waaw waaw ndax li nekk wax yàlla subhanahu wa taala <laughs> waaye nag eh, kii jàng neexal ko ci dee kii macha allah mm-hmm. eh, li ñu njëkk a seetlu ci njàng mi junñ nga ko mm-hmm. li xew ci jamono wala lu bari lu xew ci ñenn ci jamono ji mm-hmm. dugg ci mu am po ci njàng ah, loolu moom lu lu ma war a moytu la man ak samay moroomi donga alquranul karim daa wax ci biiram ni foo indiwu ko fi wallaahi wallaahi borom da ngeen defe ni dama bind asamaan ak suuf ngir um po <laughs> wa ma xalaqna alsamawati wal arda wa ma baynahuma laacibin wallahi wallahi wallahi binduma afa xasibatum annama xalaqnaakum abathan kon pomoom mhm. bu ñu demee ba mu wàll si nag ci biir alquranul karim donte amoon na ci nag bu njëkk mhm. rawatina ci sunu histoire réew mi bi fi alquran doog a dugg fekk ñim fi fekkoon di ak ceddo ceddo setegul ci ñoom ñu jaxase alquran ak yooyu mhm. sunu mag ñu baax ñi rahmatullahi alayhim Euh, sunu mag ñu baax ñi ñu gën a xam biñ ñee fexe ba raxas lu bare bare bare ci loolu ah, nde soo jàngee tënk mag ñu njëkk njëkk ñi moom mhm. da nga ciy fekk lu bari loo xam ne daana dugg ci mpo mhm. mhm. waaye wax dëgg yàlla sunu mag ñu baax ñii ñuy xam te di leen dégg def nañ ci liggéeyu seetal loolu maanaam seetal alquran ji ci yañ ci dugaloon ci po waaye seetal po foowee alquran tamit ci xolu nit ñi buñ demee ba jëmmi janoo gisa di gisaat lu nuru loolu muy xoy xoy mat naa teel a ten bi ba ñi mhm. nga xamante ne ñoo fi nekkal eh, kilifteefu jàngum alxuraan ak jàngale bàyyiloo ci xel njaboot gi njaboot gi it mhm. ci xel ndax ñu ci bëri xéer moo leen a mhm. neexal bëgg kii waaye alxuraan des koy jàng ci ful la bëgg bës rek wax ma nga wok te alxuraan kenn du ci bës alxuraan daay yéeme maxtaan ne ne booy jéem a yéeme yéemal yow mi koy jàng di ci boole <laughs> da ngay boole jural ngay dugg ci ngeen xamul mujj doon a rek sami'na qur'aanan ajaban <laughs> eh, ni ko waxee eh, laayaat yi jàng boo seetloo da nga ni huwa yuhyi wa ilayhi ah yàllaay dundal mooy rey de kon bis dina ñëw ngeen jóge fi te ci yàlla ngeen dellu mel ni dangaa jax ne ah luy pexe bi kon mun na qad jaakum maw'izatun min rabbikum allahu akbar alquran <laughs> alquran ñëw na ma waar gaa ngi nii mhm. liñ soxla ci mooy nga waaru ndax boo delloo ci sa borom subhanahu wa taala fekk fa teraangay àdduna ak jol laaxira mhm. waaye boo waaruwul ci alquran rek boo demee musiba nga fi fekk yal nañu ci Yàlla musal amiin yaa eh, sunu jotaay bi nag ni ko waxee qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bi daalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun dara dajalewul ay nit ci kaw suuf mhm. lu gën ree alquran al karim eh, Cheikh Abdoul Aziz <laughs> gi bu fekkee am na kàddu yi waaw waaw bu fekkee am na am na message bu mu bëgg jàllale rek par rapport ak alquran ak koor geeg yooyu incha allah bisimilah ci diiru benn minute te ñu dugal keneen. incha allah xanaa di ñaax ma ko jullit yëpp. Mhm. nga xam bi amul li fi gën alquran al karim. wax waxi ki gën a màgg. te mhm. mooy borom bi subhaanahu wa taala. est-ce mu jox ko ki ki gën a màgg te mooy. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te alquran nee nañ ci weeru koor lañ ko wàcce mhm. kon. waruñu waruñu waruñu di def chaque weeru koor rek la ñuy jàngal Alxuraanul Karim mhm. di ci def ay yitte mais mhm. dañoo war weeru koor bi ñu doon def benn ñu yokk ñu ngi ñaax ñu mbokk yëpp ñu gën a góorgóorlu ci Alxuraanul Karim mhm. gën a defar suñu bopp gën a yaraat suñu bopp bu baax a baax ba bu ñu jugee ci koor gi nekk ay ay nekk saalihiin yu baax insha allah macha allah jazakumullah xeyran message bu fort message bu fort <laughs> nañ bàyyi xel Alxuraanul Karim rawatina ci koor gi mhm. rawatina ci koor gi nag junj na ko kon waruñu ko ci yemale mhm. ndax alquran bu dee jàng gi di ko waqaaf ak yooyu sax am na barab buñ ko yemale mhm. buñ jógee moom dañ ko war a yóbbaale ci sunuy wax ak sunuy jëf loolooy tax ñu am dëgg dëgg dëgg nag li fi indi alquran al karim mooy àgg ci alxayatul uzma mooy tatbiq tatbiquhu mhm. fi jamii jawaanib alxayaa macha mhm. allah mag mhm. Abdul Aziz xam naa dañuy bàyyi nga tëj ko bu ko defee dalal ke ci des incha allah ñu ñu ñu ñu ñu gërëm ko bu baax ci message bi mu joxe euh, bu ñu xoolee âge bi ak ni mu joxee message bi ñu xam ni euh, alquran rek moo mën Euh, tey boo fi tegoon keneen muy joxe message. Mhm. li muy njëkk a wax mooy président de la république nañu jàppale ci nangam. wala nañu def nangam mbiru àdduna koy yitteel bu booba mais moom mu ngi ñaax ay mi ngi ñaax jullit ñi. rawatina. Mhm. Euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu. soobu daal bu baax ci alquran ah. rawatina ci weeru koor buñ ci tollee kon eh, tabarakallahu ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax mm-hmm. Mm-hmm. Eh, njàng mi neex na yal na yàlla fayal fayal ñu la yiw eh, boole ñu ko ñu ñu fi toog ñëpp ci plateau bi ak ñi nga xamante ne bii ñooy topp Tawhid TV saa sa incha allah jazakallahu xeyran jazakallahu xeyran <laughs> kon bu ko defee dañuy mm-hmm. ànd rek ñun ñëpp ñu dugalaat nag kenn koo xamante ni ci mbokk yi la ba tey waaye li li ñu doon wax. bu mhm. njëkk dañu daan dañu daan dañu daan dañuy dégg ci. ay mhm. baat yoo xam ne rawatina ab ab ab ab tubaab. Mhm. tubaab moom bu la bu la bu la waxee lenn. boo deful attention rek. dina indi dina la andil ab problème. bu yàgg dañu fi doon dégg baatu parité. ba léegi dañuy gis ndax ci kayitu vote yi. Mhm. dañ naan la boo dugalee benn góor da dugal benn jigéen. ndeysaan <laughs> liste yi waaw liste liste yi mu ngoog. <laughs> Eh. léegi bu boo bu ñu bàyyiwul xel lislaam bu baax. dañuy mhm. jàpp ni lislaam dafa del dafa desal. Eh, jigéen gannaaw te fekk ni moom fa mu jëlee jigéen. bu ko jigéen xamoon. dina xam ne lislaam rek kay dégg l'islam waxul ni góor ak jigéen yemuñu. waaw dañu nuróowuñu nuróowuñu. te effectivement niroowuñu kal unsa kal unsa kaaf googu kaafu tashbih la niroowuñu effectivement niroowuñu wala wax dëgg yàlla waaye nag ñoo yem ndax innal muslimina wal muslimat wal muslimat wal muminina wal muminat fële mu ni man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa muminun fala nuxiyannahu charte bi rek mooy wa huwa mu'min kum ci doon fala nuxiyannahu xayatan tayiba macha allah looloo waral nag tey euh, <laughs> suñu euh, deuxième suñu deuxième euh, invité dañ ko mën a tuddee mhm. soxna lay doon mu doon soxna Fama Diagne marhaban biha incha allah ñu ngi koy dalal bu baax mu yegg si eh, eh, eh. soxna Fama bismillah <coughs> macha allah ñëw toog <laughs> macha allah <laughs> euh, mbokk yi mi ngi noonu kon euh, soxna Fama Diagne ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. Mhm. Euh, jëlal micro bi. jëlal micro bi. wax ñu noo tudd ak ban daara nga jugee ak ban réewaay ngay jàng. leen ko waxee nag xorom na soxna Fama Diagne wax ñu noo tudd. bisimilah. <laughs> maa ngi tudd soxna Fama Diagne dëkk Tivaouane. mokkale daaree buum. Mhm. daaree Axmed Saxir Lo. macha allah jàng riwaayat xaalun. macha allah euh, kon euh, mhm. gis nga sànq xafsa la ñu jàngaloon. Mhm. léegi ñu indil ñu xaalun. Euh, alquran al karim sëñ sëñ Abdul Aziz nañ ko xame yonent bi daa waxoon ne unzila alquran ala sabaati ahruf. dugg ci biir texte boobu du xaj ci émission bi sax ak yeneen ak yeneen. waaye dañuy wax rek ni kon. ci yombal gi yàlla defalal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñëpp mën a jàng alquran da koo wàccee ci ay qiraat hmm. waxi yonent boobu ko junj unzila alquranu ala sabati ahruf ndax li indi wax ji mhm. mooy Hicham daa dem di julli ji di jàng suratul furqaan mhm. di jàng di jàng ay baat ci furqaan nu bokkul ak ni ko Omar jàngi woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhum jamian Seydina Omar mi ngi yàkkamti lool Hicham sëlmal ba bi mu sëlmalee da koo poñe hmm? ne ko da nga yàq alquran ci <laughs> nan ko daan waxee bañ nekkee daara ji léeg-léeg bu ñu jëlee kaamil bu dul xam su naan kaamil bi moo amee yàq di ko jéem a rectifier eh. <laughs> yéeme na da nga yàq alquran ci mun ko ah yàquma ko de foo jàng li ngay jàng mun ko Seydina Muhammad moom ma ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam mun ko nañ dem ci moom ndax man moo ma jàngal saar wii te jàngaluma li ngay wax mm-hmm, mm-hmm. ñu ànd dem ci sallam biñ ne tëll rek ndeysaan yonent bi yërëm Hicham ci poñe bi ko Omar poñe ndax. ndax yonamal ko. waaw <laughs> <laughs> waaw mën ko la ko kii damaa dégg muy jàng alquran te wuute nag ni nga ma ko jàngale yonent bi ne Hicham jàngal mu daal di jàng mën ko nii lañ ko wàccee. waaw ah. Omar jàngal mu daal di jàng même place bi mën ko nii lañ ko wàccee. ci la leen wax nag ni unzila alquranu ala sabaati ahruf hmm. loolu nag borom xam ne bi ko yonent bi jàngee lépp jàngal ko saxaaba yi. ci la borom xam dem ba liggéey ko génne ca la wér lépp mu tënku ci fukki njàngin alquranul karim mhm. di fukki qiraa qiraa bu nekk am fukki riwaaye am ñaari riwaaye kon mhm. riwaayatul quranul karim yi wér jóge ci yonent sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Abdul Aziz ñaar fukk la hmm. kon xafsu bi Mouhamed Ibrahim jàng sànq benn la ci waaye xaaloon ji nga xamante ni soxna Faama nee na moom lay jàng benn la ci riwaayaat yooyu ak geneen ak yeneen macha allah lool loolu dina am solo xam naa hmm. balaa ñuy gën kii temps bi rek dañ hmm. koy bàyyi lim ñu indil. pour euh, ñu fa li daalika fal yafraxu. <laughs> moom it incha allahu rabbi. macha allah bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من طفة ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله am na solo xam naa ni li ñuy wax rek riwaay bi mu jàng waaw ak bi ki ki ko njëkk Mouhamed Ibrahim Cissé jàng muy diggante qaaluun mhm. ak uh, ak xafs mhm. da nga yëg ne laa xawla wala quwata illa billah <laughs> ndax dafa am loo xamante ne bii bu ko eh. keneen defoon ku dul mm. suñu borom mm. uh, problème day am parce que uh, boo dégloon ni mu jàngee mm. ay yi muy indi tey boo mm-hmm. demee ci xafs danga gis mu wax mm-hmm. wahwa mm-hmm. moom mu ñëw indi haa ñu sukkoon ko def wahwa tey bu doon ci suñu làng la wala ñun ñii ñoo koy wax mm-hmm. tey bu ma ko waxee fii dem feneen waxee ko neneen dañ naan ma mm-hmm. lii nga waxoon fii fii lii nga wax <laughs> wax yi du mën a doon benn mukk parce que yaa waxoon lii fii yaa lii wax ji mënul doon Cheikh Abdoul Aziz langue arabe la <laughs> macha allah eh, borom subhanahu wa taala xam naa duñ guddal ci commentaire bi ndax ñu ngi naan ma bu ñu bëggee continuer noona mën naa waxtu bi mën nañoo njatt mm-hmm. alaa ko leen damay commentaire ci riwaay bi rek kon ñu jël keneen baax na incha allah Euh, alquran al karim borom di ma ko waxoon sànq. da ko mm-hmm. wàcc ci xeeti njàngin yu bari lit tey siir. ngir mm. yombalal xeet yonent saa sallam ñu jàng alquran ñëpp. Mm-hmm. xam nga fii sunu làng ñun wolof am na ree diw daa ree. diw reetaan na. Mm-hmm. kon ñu jàng ak raa gu ñu fataxa ci gën a yomb ñu tafxim ko ko roo. moo ñu gën a yomb <laughs> amul ci wolof. roo amul ci wolof. te ree am na ci ree am na ci. <laughs> danga maa xamul. waaw dang maa xamul. dang maa xamul. ak dangaa maa xamul. da nga ak dang. Ah, dang maa xamul. maanaam danga maa xamul. maanaam mi soppeeku wut. waaw waaye bi. jërëjëf ci <laughs> tan pour ñu gën koo. mën a eh, mhm. eh, xelum kii seetaan. dañ ko daanaka noonu la rek. Mhm. lenn yi daa dellu ci ne arab yi daan waxee. lenn li dellu ci wuuteeg lahajaat yi. Hmm. saalum di wax eh, baat sàngam bawal di ko waxe ne neen kajoor di ko waxe ne neen hmm. daa dellu ci wuute googu yenn yi dellu ci jiital eh, baat fii mujj ko fii hmm. eh, nu mu tudd fa yaqatuluuna wa yuqataluun fa yuqataluuna wa yaqatuluun ak gën a demee <laughs> macha allah ma benn ñaari boo xoolee li mu jàng ni seetlu gis nga wahwa qaaluun fépp fu mu fekk huwa gu waaw jiitu wala faa wala thumma day sukun haaga wala laam lahwa fahwa wahwa thumma hwa moom daa bokk ci ñuy def loolu gis nañ ci lu toll lu mel ni yaatu zawaid in tarani ana aqalla foofu tamit yaagogu la ñu tuddee yaa atu zawaid alquran du mooy yaay nga xam ne kenn du ko bind dañ ko wax effacé woon li taxfiif moo tax ku koy jàngit dañ la koy bokkal xafsa am na ko ci mm-hmm. fa ma aataaniya allahu xayrun yaagoogu taqal ulak nuun gi ah taxawuñu de dañ ko bokkal. boo ñëwee ci kii ko jàng boo demee ci jàng ujibu daawata daa'i ida daani xeetu yàgg lañ tudde yaa aatu zawaid quraay mhm. dañ cee wuute bayna al ithbaati wal xadf mhm. ñii di ko jàng ñii di ko xadaf mhm. qaalun ndafa bokk ci ñi koy jàng ci barab donte bu foofu mu koy jàng li ci ëpp buy taxaw da ko fay da koy xadaf euh, yeneen baat yi nag ay baat yu ndaw la yu mu wute sumurihi wa uxiita bi mhm. li ci amaat solo rek mooy miimul jamaa mhm. dégg nga da ko wadrib lahumu mathalan ashaab alqarit qaalun am na lool donte am na wadrib lahum bil iskaan hmm. munfasil yi da koo xëcc euh, sitt arba xarakaat mhm. donte qaalun am na gàttal ko hmm. sitt xarakat kon mi ngi doon jàngrewaat qaalun ci xëcc munfasil yi Euh, sulawaali mimul jamii Cheikh Abdoul Aziz yooyu yëpp yooyu yëpp ci ay xeetu njàng la xamante ni macha allah rabbi kon foog mm-hmm. ñu euh, jànkate alquran yi mm-hmm. foog balaa ñuy mën a jàng alquran mu wér mm-hmm. foog ñu dem jàngi riwaayaat yi baax na ci de balaa ngaa jàng benn riwaay jàng ko ba maîtriser ko doog ko doog ko waaw riwaay boo bëgg a jàngali moom mm. fexee la xam riwaay booba macha allah yëmatan ko yëpp waaw kon euh, soxna Fama sa <laughs> message message boo war a jàllale mm. nuyu waa Tiwaawan <laughs> wax leen yaa ngi ci télé bi <laughs> bisimilah. salaam wa rahmatulah. Oustaz Aziz Thiam di rafetlu lool jotaay bi macha allah di ñaan foo bëgg ma egg fa yéen xam yal fa yàlla eggal xam naa ñuy waaj a weeru koor bi incha allah ñaan lépp jaam yàlla yëpp ñu ci def yàlla ñu ko yàlla nangul. buñ ciy génn yàlla na fekk suñu bàkkaar yëpp sa jaale ci di laale ci jikko yi rafet incha allah jërëjëf jëwaat na xeran bu ko bu ko ñegeen yeeg jegeen yi dégg nag daañu ko summi ñun ñu nekk ci koor maan ñu ngi waajal weeru koor rek <laughs> xanaa ñu ngi waajal korité lu bëggoon wax ba tax mu ngi waaw <laughs> Cheikh Abdoul Aziz kan la ñuy dugalaat macha euh, ki ciy topp mooy euh, Serigne Niang <coughs> mhm. euh, moom it di mbokk mu am solo macha allah mhm. ñu bàyyi ko mu mu jege si mhm. defal ñu li nga xamante ne bi ay mbokkam ñi ko fi jiitu jaar nañu fi defal ñu lu mel noona kon bismillah sëriñ sëriñ moom dama xam ni ab sëriñ la rek. ndeysaan ah. <laughs> bismillah sëriñ nu yool nga présenté wu. si sa tur ak euh, foo jàngeeg yooyu. salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu maa ngi nuyu masaayix ma bokkal plateau bi. Mhm. Cheikh Abou Taha Aziz. Mhm. maa ngi tudd Serigne Niang dëkk Thiénaba Seck. Mhm. Euh, jànge alxuraan ci daara a Aboubacar Cissé ba mokkal fa. macha allah

ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم ma sha allah na solo la ñuy wax alhamdulilah ci ni mu ko àndee li nga doon wax léegi rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wàcce alquran ci juróom-ñaari xaraf ci ko mën moom mu ñëw indi sab'an min al mathani wal quran al azim loolu nag bu fekkent ne bi sama compagnie gi dégguñu arab bu baax kon dañuy jàpp ni sab'an min al mathani moom bokkul ci quran macha allah <laughs> am na am na solo te it nag mhm. euh, jàngale na lu am solo mhm. loo xamante ni kenn ku ci nekk war nga cee bàyyi xel mhm. bi ci bi bi ma ciy indi rek mooy wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin waaw kon dafa dafa jaadu jullit bi saa su ne rek jaamu boroomam keroog xam nga léeg-léeg tubaab daf la koy wax maanaam ñiy jàng tubaab dañ la koy wax euh, balaa may gëm dara foog ma teg ci loxo dëgg la léegi nag ñun suñu diggante ak suñu borom nañu jàmm rek ba keroog ñu demee mal xiyaam sk macha allah euh, njàng mi am na solo alhamdulilah alhamdulilah jazakumullah xeyran cheikh euh, abdoul aziz jazakumullah xeyran sëriñ ci njàng mu am solo mu dal mhm. euh, li ñuy njëkk a wax rek mooy riwaat xafs la jàng mhm. mbokkam mi fi mi mi njëkk ci jotaay bi mhm. bi muy présenté bi daf mel ne ñoom ñax ñu bokk jën daara juñ jànge kon macha allah muy daal di cana ba moom it riwaat xafs la jàngoon waaye hmm. ku leen déglu mel na ni ki ki jiitu hmm. daa gàttaloon li ñuy tudd almadul munfasil hmm. te moom da ko guddal waaw te ñoom ñaan ñëpp jàng riwaayat xafs loolu it mu jaaxal kii jàng kii déglu eh, ñu ne ko riwaayat xafs la ñaan ñi jàng mu ne lu tax kii gàttal kii guddal xafs eh, min tariq Shaatibi day gàtt day day digg doomul day guddal comme ni mu ko jànge xafs eh, min tariqi at-Tayyiba turuq yu bari dañ fay gàttal kon kay daa jàngal daa jàng yoonu xafsu wu doon gàttal ki jàng yoonu xafsu wuy guddal <laughs> waaye ni ko waxee rek ba léegi nu ngi lëkkale mhm. koor gi ak téere bi mhm. loolu la émission bi di dox ci émission yi ci biir koor gi yëpp ba <laughs> uh-huh. tax ñu ne jotaayub tey mu ne tëdd rek ni walaqad ataynaaka sab'an min al wal qur'aan al-'aziim as-sab'u al-mathaani mooy fatiha hmm. suratul fatiha da bokk ci ay turam as-sab'u al-mathaani hmm. may faral di ni dafa mel ni yàlla dañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa la fatiha sama digganteeg yow boo bëggee ba musal la boo bëggee ñaan ma nangul boo bëgg nangam ak nangam faatixa mën na lépp mhm. war quran al azim mooy ni nga war a dundee sa système de vie lépp nga ci alquran al karim nit ki nag bu digganteem ak boromam jagee digganteem ak boppam ak moroomam bindee fam jàkk jagal la àdduna ak àlaxira ah, ah. moo tax ba mu ko waxee pare mhm. dana ko laa tamuddanna aynayka ilaa maa matta'naa bihi azwaajan minhum comme ah, ko jox naa la alquran léegi <laughs> bul geesooti keneen rawatina ñi ma jox àdduna kese mhm. wala taxzan alayhim bu leen tiit wax fi janaaxaka lil muminin yow daal ñi nga àndal mm-hmm. bu dee yonent bi mun ko sa sa sa njaboot gii di julit ñi bu dee kenn ci julit ñi te ñun ñoo waxoon wa nax eh, wa nahnu min al eh, wa man ahsanu qawlan mimman wa qaala innani min al muslimin mm-hmm. ñooñu nga àndal ciy julit fexeel ñu yëg sag woyof yëg jikkoy alquran ci yow mm-hmm. xoolal fële ci suratu taaha eh, laa tamuddanna aynayka ilaa ma mataana bi azwaajan minhum zahrata alxayaati dunia du ah lii ma leen jox ci àdduna du dara li naftinahum fii wa rizqu rabbika xayrun wa abqa sa sa sa sa xéewalug borom ak lam la dencal moo gën te mooy sax loola koy may waabud rabbaka xata yatiyaka alyaqin fi mu daanele macha allah loolu daf man dafa dëggal message u Mouhamed Ibrahim mi njëkkoon dugg bi ni buñ ñeemale alquran ji ci koor gi waaye nañ continuer ak moom mu ñëw nañu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Cheikh Abdou Aziz alquran neex na neex na ci biir neex na ci biti neex na ci jàng gi neex na ci déglu gi neex na ci jéem a jeqi yi nga xamante ni moo ci nekk eh, innahu la xalaawa da nga ci da nga ci da nga ci da nga ciy xuus sax léeg-léeg mhm. gis ci loo xamante ne bi da nga naan lii est-ce que est-ce que yéeme na doy na doy na waar daal moom waxi yàlla <laughs> moo tax mu mel noonu waxi ko màgg moo tax mu màgg moo tax mu màgg macha allah kon ñi koy jàng it nag dañoo màgg alhamdulillah ñi koy jàng dañoo màgg ñi koy jàngale it màgg macha allah ndax ku bu dafa jóge ci ku màgg uh-huh. nekk lu màgg uh-huh. yàlla jox ko ku màgg uh-huh. mu àndil ko ku màgg wàcc ko ci weer wu màgg kon ñi ko yor nag ñoo gën a màgg ñeneen ko yor ñoo gën a màgg biir xeet woowu ña ko fa mokkal a màgg <laughs> xayrukum <laughs> eh, yàlla na yàlla boole ñu defal jàmm amiin yaa rabbi eh, kon eh, Serigne sa message booy booy booy joxe ak téléspectateurs yi <clears throat> xam naa li ñuy dénk suñu bopp di ko dénk euh, mbokk julli yëpp mm-hmm. mooy ñu gën a farluwaat ci jàng alquran comme ni ko suñu mbokk Mouhamed Ibrahima waxee mm-hmm. maanaam ñu xam ni alquran moom mm-hmm. euh, te yàlla wàccu ko ngir ñu koy barkeeloo comme ni ko yendet di di waxee mais borom bi da ko wàcc ngir ñu jàng ko kon ñu xam loolu benn di barkeeloo di ko teg ci néeg ak yu demee noonu loolu la ñu doon di ñaan borom subhanahu wa tere bi fi fi borom naal yàlla mhm. borom bi yeggale ko fa. amiin mhm. amiin innahu waliyyu zaalika wal qaadiru alayhi. waaw Cheikh Abdou Aziz kan mhm. ngay kan ngay dugalaat. waaw euh, xam naa ki ñuy dugalaat ma it euh, soxna lay nekk. macha allah. Euh, yal na yàlla boole ñu defal jàmm ñun ñëpp. waaye defal leen ko ñoom bu baax a baax. ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu. dañoo toll ci weer yële paase rek. ñuy wax ni dañoo toll ci bésu jigéen yi mars ma leen da a tardé. a bu ngeen xamul li leen lislaam defaral <laughs> du ngeen fi nekk di kii am na solo message bi mu joxee dëgg la. Euh, li ma ci wax rek mooy am na ñoo xamante ne oustaz dañuy jël ab kaamil. Mhm. boo xamante ne bii euh, fegg ya. couverture mhm. bi dafa dafa dafa dafa dafa xonq dafa rouge. Mhm. waaye dañ koy sànni ci seen ginnaaw oto yi naaj bi lakk ko ba mu. dema dema dema dema dem ba couverture bi day weex. ndax naaj naaj bi lakk lool nag moom taxuloon alquran wàcc déedéet kon nañ ko ciy bàyyi xel bu baax a baax ki ñuy dugal léegi mooy euh, soxna Ndeye Sophie Gassama soxna Ndeye Sophie Gassama bismillah bismillah euh, macha allah. macha allah marhaban biha. waaleykum salaam wa rahmatulah wa waaw euh, xam naa ni euh, dina présenté boppam waaye yow waaw waaw sama ginnaaw tool la wasalaam. <laughs> moo tax ma yàlla di nga <laughs> ñi dégg wolof xam nañ li baatu sama ginnaaw tool la. <laughs> kon jërëjëf. bisimilah bisimilah <laughs> soxna Ndeye Safi. Mhm. ngi nuyu mbokk yëpp. Mhm. di leen ziar bi. Mhm. di ñaanal avant tout sama sëriñ daara bi ma jàngal alxuraan. di ñaan lépp lu firot ci alxuraan rek yal na ko def ci ay misaan xasanaatam. incha allah maa ngi tudd soxna Ndeye Safi Gassama. dëkk Kër Madaro. di doom ci tafsir Moussa Gassama ak soxna Mariama Anne mhm. jàngi alxuraanu karim fete Thiès ki maatul islami al imam Ahmad Ndak Seck mhm. Cheikh Abdoul eh, mhm. bi leer na waaye naa ni dama lay bàyyi réew nga présenté waat waaw man kenn li ma na te leer <laughs> dama bëgg présenté waat bu ma sës ci mbir waaye <laughs> dafa des dana baax sama ginnaaw toll la wasalaam am na ñu xamul <laughs> jaaru Mansour gi xamuñu loolu ndax dégguñu wolof. dana baax rek. kon macha allah ñu jàngi wolof. <laughs> macha allah kon ñu bàyyi la nga. Mm-hmm. Euh, tabarakallahu indi mm-hmm. ñu li nga ñuy nar a bégalee ci alquran. Mm-hmm. ban riwaay nga koy jàngal. Euh, Abul Haris euh, riwaayatu Duuri an Kisaa'i. riwaayatu boobu est du maa ngi koy dégg man. Ah. <laughs> kon nar nar nar naa jaxasoo ndax Qaaluun ñëw na fi Hafs ñëw na fi Abul Haris. ah macha allah. kon eh, téléspectateur yëpp lay jàng Abul Xaaris wala Duuri ñaar riwaay boobu. Duuri Duuri ak Duuri an an abi macha allah. bisimilah ak Duuri lay jàng. kon mhm. na na na téléspectateur yi eh, fattar ñi wàcc seen nopp bu baax. Mhm. ndax yaakaar naa dinañ fi dégg loo xam ne mosuñu koo dégg kon. macha allah incha allah. bisimilah. auzu billahi mina shaytaani rajiim. bismillahi وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لك وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم macha allah macha allah waaw man de li ma ci jaaxal rek mooy baatu olof yi ci ne déet waay. a alquran arab la di bi lisaanin arabiyyin mubiin. man day baat wolof laa dégg de. Eh, ndeysaan hikme. Eh? <laughs> Eh? mais allah loolu am na solo. alhamdulilah. <laughs> am na solo lool. Mhm. yàlla teel nañu teeloon nañoo wax ni. Mhm. seytaane sunu noon la. Mhm. comme aduwwun mubiin. kon ñu war ko bàyyi xel bu baax a baax. moo ñuy tere. Mhm. ñu ñu war a ñu ñu war a gëstu alquran moom cheytaan mhm. yal nañu yàlla musal ci moom mhm. na ñu yàlla ni mu ko yeewee nii yeew gi daa waroon di continuer nag aw temps yeew euh, bari na daal loo xamante ne bii daal moom bu yeew gi continuer sunu njàmbaar du feeñ waaw ñu bàyyi ñoog euh, benn benn mbër mu ñu jàkkaar lool bëreeg moom tuuti jéem ko jàggi doon ndax sunu njàmbañ fee sunu ah. feeñ <laughs> ah yàlla ñu yàlla ñu yàlla ñu <laughs> yàlla may doole boog ci kaw allahumma amin allahumma amin gën a mën a du ñu mënal dara incha allah allahumma amin ya ah, am na solo ndax mm-hmm. ah, njàngin la boo xamante ne bi mm-hmm. dafa raar mm-hmm. ci nit ñi ñu koy dégg ah, ci ci ci ci ci jamono wala boog ci sunu ci Sénégal daal riwaaye Hafs riwaaye Warsh te booy xool sax riwaaye Hafs ak Warsh la mu la mu ëmb lépp lu bari. ñoom ci mhm. benn rek la ñuy yem. Eh, tey mu ñëw andil ñu biir loolu ñu ciy wax. Eh, jërëjëf sama commentaire baal ma njëkk koo jëmee. Mhm. ci lenn ci aaya yim jàng. waaw dinaa ko gam-gam lekk eh, naataangoom soxna Fama mi fi génn sànq. Mhm. moom it barab bi mu jàng. jotaay bi féexlu la ñu Cheikh Abdoul Aziz. waaw ku defar sa kër. <laughs> bëgg bëgg ut fa barab boo féexloo ab jardin ngay ut ca ca ruq ba ab janna. waaw waaw ak jann xam nga jann mooy jardin. waaw mooy jardin de. waaw moom ngay ut ca ruq boo xamante ni lépp loo luy tax féexlu gën a kii rek. adawaatu féexlu. foog ngay dajale waaw nga ut ko ba mu mat. xoolal kële bi mu ñëwee ñun ñu ngi ci jotaay féexlu alquran mu ñëw wadrib lahum mathalan rajulayni jaalna li ahadihima jannatayn min a'nabin nga ñëwaat kii wadxulul jannata antum wa azwajukum tuxbaruun ba muy daan tilka aljannatu allati uridtumuha bima kuntum taamaluun kon daal yal nañu yàlla defal aljanna suñu jotaay bi Cheikh Abdoul Aziz yàlla nañ ko toogaat ëllëg yawmal qiyaamati ca aljanna yu kawe ya amiin amiin di bànneexu foofu ci alquran al karim ci teewaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci teewaayu xusarim sahaaba ya ak nun sunum Abdullah bin Mas'ud <laughs> maa ngaa yi xusarim mooy sunum Abdullah bin Mas'ud ñoom Abdoulaye Alioune Mansour mooy seen xasar waaw. <laughs> kon jeex na. <laughs> yàlla ñu yàlla defal Aziz mhm. ni ko waxee mi ngi doon jàng riwaayatu duur yi. Mhm. anil Kisaa'i. Mhm. Eh, ak kenn la ko jàng ci Kisaa'i jàngwaat ci ko ñu wax Abu Amr. moo tax ñaar fukki riwaay yooyu moo la doon wax ni mooy riwaayatul Qur'aan al Kariim. di nga ci am riwaayatu duur yi an Abi Amr am ci riwaayatu duur yi anil Kisaa'i. moom nag eh, adduuri anil kisaa yi la doon jàng al imaamul kisaa yi moom yi dañuy nettale nii ab sàmm la woon hmm. nekk ci àll bi di sàmm benn mer romb ko téye ci loxol doomam pour ma wax la léeg rek am na kàddu yoo xam ne ni ñuy defee jom ci nit waaw téye ci loxol jom dana ko loxol jàngi laa wax nga bëgg a bañ jàng nii boo fi bañee jàng bu màggee ni kisaa yi mii rek nga mel di sàmmi nag rek ak kii subhanallah nekkate loolu ñulub na kisaay hmm. mu jóge fa jaajur képp jënd koy téere dem jàngi ba xoolal teraanga xoolal teraanga ji ji ko yàlla defal yemul ci bokk ci ñi askanale qiraatul quran al karim waaye am na ci borom xam ne sax ñu wax ni ci ñi njëkk a dajale maanaam jenn jëmm joo xam ni moo daje ci jëmm jooju qiraat yëpp daje na ci moom ci la bokk hmm. mboolem loolu nga xam man ngaa ngaa ñëw fekk ma jàng benn xara ak keneen jàng benn xara ak keneen kenn mhm, mhm, mhm. waaye jëmm joo xam ni moom moo njëkk a dajale moom bu dul moom it ci ñi ko njëkk a def la bokk eh, alimaamul kisaay moomu kon dafa am ñaari taalibee kenn ko tudd abul xaaris kenn ko tudd ak duuri ni ma wax sànq fii da nga fi gis yitte yi borom xam-xam yi yemu ñu woon ci jàng naa lii man naa ko rek dem duuri ba mu jëlee ci abu amr ba man riwaaya boobu yi mu jëlee ci abu amr daa dem ci kisaay yi jël fa tamit ba man ko ñu askanale ko bi askanale ko bi eh, alkisaa yi ci boppam qiraatul kisaa yi kon bu ñu boolee ñaari riwaayam yooyu mhm. ñooy imaalat haa ut tanis gu ñuy taxaw gaaliban hmm. aljanne waaw ah, boo fay taxaw nga koy jàng waaw dégg nga sànq mu ni qad eh, qad jitukum bil xikme mhm. daan ni bil xikmati wali ubayina taxaw gi la hmm. al imaala nag mooy araf wu ñu fatxa nga bàyyi fa fatxa nga jànge ko diggante fatxa ak kasra mooy li ma doon junj sànq ci ree wa ma adreeka loolu mu def mooy imaale léegi fatxa ga dama koo xëcc ba mu nekk ci diggante ak kasra alif ga ma xëcc ko ba nekk ci digganteem ak yaa rii moom kasra la kasra la raa fatxa la rii kasra la diggante bi nag ah. mooy imaala ree donte am na bu nekkaat ci digganteem ak fatxa moom lañu ñuy wax imaala sugra wala taqlil moo bari ci warsh hmm. dun yee du wax kee kee lay wax hmm, hmm. donte ñun ñu bari dañu def ne warsh day imaala <laughs> warsh benn imaal la am bari na ñuy jàng eh, imaala lépp taahee benn imaal boobu la warsh am du baneen ñi ci des moom li des taqlil la imaala sugra la ñoom lépp moom donc bari na ko bari na tamit li ñuy tuddee idgham al mutajaanisin wala al mutaqaaribin saxiir mhm. li ñu xamante ci idgham euh, euh, bunt boobu mithleen saxiir moom ñëpp ko imaala ñëpp ko idgham mhm. lu mel ni idrib bi asaaka qad daxalu ak yu ni demee mhm. waaye bu dee ñaari xaraf yi dañoo bokk fu ñuy génn te wuute ci ay sufaat la ñuy tuddee mutajaanisayni bu dee ñaari xaraf yi dende dañoo dende maxaraj kese comme ni ñu dende ci alquran noonu waaye bokkuñu ko sax bokkuñu ay sifaat la ñuy tuddee mutaqaaribayni idgham mutaqaaribayn ak mutajaanisayn nag dafa bari ci qiraat moo tax feeñ na ci qad jitukum feeñ na ci uuritumuha donte ni mu ko njëkk a jàng dafa dellu si waat dafa dafa dafa fa kasalu ci bi dafa dellu si waat lim jàng ñaareel lool la al al al eh, abul eh, wala duur yi di jàng uuritumuha loolu mu ngi dugg ci buntub al mithlayni wal mutaqaaribayni fil jaanisayni ak yi ci quraa yi am ci diggante idgham ak idhaar Cheikh Abdoul Aziz li moo tax ñu naan yombul yomb woon nag gaa jàppe de. gaa <laughs> woon nag ndax yomb gee tax nu man ko mokkal. daa am laaj bu may laaj rek. Eh. ndax euh, baatu euh, aouzu billahi min ashaytaani rajim. Mm. ndax dafa am ay riwaayaat ndax dama ciy dégg ay onsu billahi yeeg dama xamul ndax boobu riwaaya la wala nu mu demee. <laughs> la hawla wala quwwata illa billah. aouzu billahi min ashaytaani rajim di man loon kese laa ko jot a jàngagun yëpp maa ngi waaj a dajal sabaa. macha allah ci qiraa yi muy fukki riwaay ak ñeent. macha allah. Eh, yee ca des sob naa ca. Mhm. sob naa ca ci gëstu ak xam ci dara téere yi koy jàngale léeg-léeg ma liir ca. Mhm. waaye dajee guma ñu ni aoudu billahi min ashaitan arrajim riwaaye sàngam ni la koy jàng fii riwaaye sàngam ni la koy jàng <laughs> li ma dajal daal mooy nun koy booleeg la ngay jàng loolu moom am na ay awju waaw la ca kanam mhm. waaye nag jëmmi aaduna a rajim gis a ñëw dañu aoudu billahi min cheytaan rajim taxaw mhm. bismillahi rahmaani rahim ki tudd sëriñ ñang bi muy jàng da ngaa dégg mu ne aoudu billahi min alcheytaan arrajim bismillahi arrahmaani aw jëf yooyu daal xam naa ko ci te xam naa ne du laaj bi kon naa ko bëbëstal noonu te dem. <laughs> kon ñoo ñooñu. koo ci gisee du koy wax lu mel noon rek sas naa la nga jàng nga jubbanti ko nga jàngal ko. non moom kay dañuy seetaan émission bi jubbanti ko waale ko ci. waaw aoudu billahi min ashaytaan arrajim la ñuy wax. benn ah. benn la indi beneen façon bu bokkut ak moom. jàng guma beneen bu dul aoudu. Hmm. billahi min ashaytaan arrajim. siyaq yi mën naa wax te léeg-léeg nga dégg ku ne audu billahi samii alimi min alcheytan arrajim loolu tam est-ce que baax na amul problème waaye bi gën mooy bi alquran joxe mooy audu billahi min alcheytan ida qarata alquran fastaid billahi min alcheytan léegi fastaid jooju fa ngay teg sa fi'l mudaari ji rek audu daal di continue hmm. yàlla dañu muslul nga ni maa ngi muslu daal di ah. àggal lam la ca tegal moom billahi min alcheytan arrajim audu ah, mooy maa ngi muslu maa ngi muslu kon ñi indi beneen riwaay ci aawuzu ñoom muslootuñu. xaw ma lu ñu wax. <laughs> allah am na solo am na solo jërëjëf jërëjëf ma waxtu yu jeex na xam naa ñu tëj ko. waaw kon mi ngi noonu dañ koy bàyyi mu mu joxe message am. bismillah. Mm-hmm. Mm-hmm. waaleykum mm, xam naa message bi moom du dama koy lancer rek sama mbokk jigéen ñi. Mm-hmm. di leen wax ni ñu bañ jël xam-xam waaye rawatina jàngum alxuraan féetali ko góor ñi. di wax ni bu fekkoon parité donte ne amul mais bu fekkoon am na. fu ñu koy jongantee rawul fu dul alxuraanul karim. est-ce que que est-ce que àdduna bi li muy bëri ay daara daara yépp. Hmm. boo ci génnee góor ñi li ki des du bari. te segam dañ ñi jigéen mooy ki yàlla préparé pour ëllëg mu jagal askan. Hmm. jagal góor ba jagalaale ñeneen ñu ci bokkul. Hmm. kon bu ñuy wax daara jigéen moo tax. kon war nañoo fexe ba fu góor taxaw yor daara jigéen taxaw fa yor daara même boo yorul daara sax nga yor ay jikko yoo xamante ne bii nii ku la gis hmm. dina xam ni kii préparé nañ ko di ñaan yàlla yal nañu yàlla taxaw yàlla buñ génn ci koor gi te bokkuñ ci ñi nga xam yàlla yee ni setal ci safara yaa rabbal alamin incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah message bu fort bu fort bu <laughs> Eh, dinañ ko tàcc waaye dinañ la tàcc yooyu. sa baat bi ni nga ko waxee da nga ko préparé bu baax a baax ma ko sax tayoo ko waaw tayoo ko xam naa ni tayoo ko préparation bi. Eh, message bi am na solo lool. Uh-huh. Eh, uh-huh. te bu ñu bu ñu bàyyee xel bu baax. Uh-huh. léeg-léeg nga dégg ñu lay wax ni al umu madrasa. kon ñoom ñooy daara kon. kon man kii dama rek mu ni jagal boppam jagal njaboot gi jagalaale góor. waaw jagalaale góor. allah macha allah <laughs> est-ce que est-ce que macha allah message bu fort la. alquran loolu la soññi. man dama fay wax ni jigéen moom moo war a gën a jàng ñëpp. ndax dañ koo sas mu am ko mu defar hmm. moom mooy atelier bi yàlla di liggéeyee nit hmm. nit kooku tamit bu ganee àdduna ci loxoom la ko yàlla njëkk a teg hmm. ne ko yiy jiitu ci moom ak yiy njëkk a xeetu yar ba yow laa ko sas loola lu ci bari moom lay continuer la muy def ci moom kon moo war a gën a jàng moo war a gën a xam moo war a gën a jikkoo jikkooy alquran ndax mooy defar lu am solo la wax macha allah yàlla na ko sunu mbokk jigéen ñi dégg amiin amiin waaye góor ñi nga xamante tamit ñoom la yàlla def ñu yilif jigéen ñu jàppale leen ci loolu mm-hmm, mm-hmm. jàng xam dimbal leen tamit ci bépp moyen boo xamante nii daañ ci mën a appliquer liñ jàng mhm. waaye daañ ci mën a tasaare liñ jàng rawatina ci seen bokk jigéen Cheikh Abdoul Aziz Al Huda la woon abouta euh, fi mu toll nii góor góor ñi ngay wax naan jàppale jigéen ñu bari na ñoo xamante ne bi jigéen ñi leen ci njàng yàlla yàlla yàlla yërëm <laughs> mbokk jëlee di seen émission Al Huda woon noo ngi doon feexlu ci alquran karim alhamdulilah dégg nañ fi alquran ju neex ju wér ci riwaayaat yu wuute nu ngi leen jox dig dëgg aljuma ji di ñëw incha allahu jotaay bi la ñuy àggal yi ndax daañu dalal ñeneen ñoo xamante ni ñoom nañ jàng nañu alquran karim xereñe nañ ko seen baat neex na ñu bokk féexlooti ci jotaay bi alhuda bi di ñëw seen mbokk loon Abou Taha Mahmoud Alioune Gueye ci seen émission alhuda asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون